ay ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak kon contentement di jàkkaarloowaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ni leen ko toppal yaakaar naa ne ku ne xam na ne dimanche bi passé ci diggante Sa ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu seen ci diggante Liss Ndiago ak ki nga xam ne moom moo di pokolaa waaye nag dañoo toog ak kenn koo xam ni bu ñu ko waxee muy sëru liis Ndiago bu ñu ko waxee muy Binta Njaago bi Binta mi nga xam ne moom moo taq ci liis ak yi ci jot am yëpp yëpp yëpp yëpp nañ ci dugg reelal ko ni ñu préparé combat beeg yëpp yëpp yëpp nañ waxtaan ak moom Binta ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Ah, Makan maa ngi lay fay di nuyu askan bi yëpp ah nuyu waa bitim réew diaspora bi nuyu waa Sénégal fii nii ñu nekk ah, waa Gambie tamit suma réew. Ah, lan lañ lay ah félicitation nag ñu war a mun a wax de <laughs> parce yu bëri leeraluñ ko. Eh? waaw mais yàlla baax na. Mm. jàpp ne fi ne nii yéen am ndam. ah waaw tamit ñëpp gis nañu ku si nekk am nga sa bët di xool mais yàlla noppi na garaawul. <laughs> yàlla noppi na garaawul. <laughs> ale boo gis am na retour. billaay wallaay. Mm-hmm. Mm-hmm. mais Liss préparé nan la Liss préparé Pokola ndax gis nañu liis mu indi doole ñu gis liis mu indi état. nan la Liss préparé ki nga xam ne moo di Pokola. xam nga waxoon naa la ko fii ma ne la liis saa su nekk moom la muy def moom mu ngi koy def laaj nga ma analyse ma ne Liss gisuma ko mais mi ngi entraîné te entraîné boobu noonu moom la indi woon keroog ca làmb ja ku xool Liss rek di nga xam ne ni kii dafa entraîné foowul foowul benn yoon euh, gars yi lu ñu foogoon ni ni Pokola bu jàppee Liss rek da koy saax saaxee rek mu jeex mais keroog làmb moo fa am dañu bëri dañoo bëri ñoom ñaar ñëpp a bëri lii sax dafa bëri tamit ñoom ñaan ñëpp a mais tamit coup yi tamit dal na tamit parce que lii tamit jàng na boxe tamit ah, yow tamit. mu nekkoon combat boo xam te ni combat bu métti la ndax combat bi neexaay bi Sénégal yëpp ñu ngi ko doon séntu diggante liis Ndiago ak ki nga xam ne moom moo di Pokola la fa xew yëpp xew fa xeex bi métti trop trop trop. waaw man damay ne saa su ne rek loolu yëpp mënoon naa bañ a am parce que du ñu ay burkinabé ay sénégalais lañu du dëgg dafa mel ni tey xobu garab benn boo ci kii rek boromam da koy yëg noonu rek la fa war a mun a demee tamit du dëgg parce que xale yi am nañu gaañ gaañ muy waa Pikine muy waa géejo euh, kii jàmba gën am na yenn yoo xam ne ni jaru ko làmb bi jeex na du dëgg léegi suba boo dageeg sa moroom nooy def làmb waruñoo sax di def yenn violence yi loolu baaxul loolu bokkul si suñu réputation ñun sénégalais yi. du dëgg am na loo xam ne dafa ñaaw am ay doomu jàmbur ji si loru. xam nga ak ki nga xam ne ni tamit dégg naa tamit mooy loolu tamit. lañ ko dóor waaw bal lañ ko dóor tamit. xam nga mu wàññeeku. non loolu métti nañu torop. loolu métti nañu torop am na yenn yoo xam ne bu doonoon sa rakk doo ko def. du dëgg bu doonoon bàyyi bu leen jur duñ ko def. bu doonoon seeni yaay duñ ko def. mais raku jaamur la ñu def loolu mais président de la république jomaay euh, du dëgg xam naa ne dinañ régler loolu yëpp parce que tamit suñuy ndaw tamit newul kooku kase la ñu def noonu parce que li yàgg naa am te li yëpp waroon naa bañ a am parce que ay sénégalais lañu man saa su ne dama leen du ñu ay congolais du ñu ay burkinabé Sénégal bés bu tàkkoon ñaanu ñu ko yàlla te loolu du mus a am ñun ñëpp ay àndandoo daw fa la ñuy daw jëm ah comme ñun ñoo bokk lépp dañoo war a bokk ndey bokk bàyyi métti na trop doomu jàmbur avenir ñu jël sànq ko loolu ay waa waajuram ni ñuy def. am na yéen yoo xam ne rafetul man waaw dina jooy même man mii sax sama yaram dafa daw makan bilaay même lis makan billaay wallaay sama yaram dafa daw parce que xale la mbëggeel dafa dafa dafa doy waar amaana sax moo ngi lis benn yoon lañu gisante xooma xam nga billaay sama yaram bi dafa daw billaay métti na trop mais justice tamit na def liggéeyam na def liggéeyam parce que bu ñu yàggee def nii suñuy ndaw léegi ëllëg fan la ñuy jëm avenir u Sénégal ëllëg fan la ñuy jëm kan moo ñuy jiite jàpp ay nit di leen rek waa benn doom boobu ñu ñëw waaw waaw waaw ñu ñëw jël ko te yaayam amoon na yaakaar ci moom mu nekkoon jàmbaar ci li ma dégg muy soutenir yaayam di dimbali ay rakam léegi yaa am kan moo koy dimbali nga ñëw rey nit ki mel ni ay ginaar duñu ay ginaar ay sénégalais lañu nañu waxante dëgg tey kuñ ci defoon sa sœur génn wax Ahmed Taya def nañ ko fi doomu jaamur xale bu ndaw ñu ñëw def ko noonu yàqal ko avenir am léegi waa juróom nu muy def billaay man mii dinaa dem foofu noonu seeti leen parce que dafa métti si biir xol métti na torop billaay sama yaram bi day daw métti na billaay wallaay billaay makan yaa mais ñëwaat ci combat Liss Liss Ndiago xeex bi. première site am Pokola door ki nga xam ne moom moo di liis mu daanu deuxième site bi Liss daan ki nga xam ne moo di Pokola première site bi bi ñu gisee ñu dóor Liss mu daanu. waa loolu xam nga si ginnaaw saako yi la woon. du dëgg fekk arbitre mooy loolu sifflé na bu yàgg. yaa ngi dégg comme am na yenn yoo xam ne ni rafetul dañ ko war a teg ci yoon même ñiy arbitre si boppam dañ ko war a teg ci yoon Liss tamit teg na Pokola chaise xaw ma lañ koy wax. caxabal xaw ma caxabal cabaxal na boo xaw ma lan la olof I don't know you know waaw mais def na ko loolu mais tamit lan moo tax arbitre bi joxewul victoire parce que boo xoolee ba xool Pokola li ko Liss jotoon na def rek deret bi bëri na tuuru na foofu rek làmb bi waroon na jeex ñu jox Liss victoire bi nañu waxante dëgg rek parce que demoon na ba nga xam ne mënatul bëre mais complexe moo ñu yàq dóor doom làq doom moo war a jeex ci Sénégal ñun ñëpp benn lañu. ñun ñëpp benn lañ am na yoo xam ne rafetul liis nee naa leen amul maam bi bëree amul nijaay bii bëre mais ñoom complexe moo leen di dugal ci yenn affaire ba bu ñu gisee dëgg duñ ko nangoo wax. kon da nga jàppale Pokola li doo doon bër moo tax ñu. non du loolu sax suñu maam boobu yal na ko yàlla yéeram man saa su ne loolu laay wax man am na du neex ba ma saaga kenn am na du neex ba ma ŋàññ kenn mais ci cadre làmb la ñuy wax mais keroog li nga xam ne ni moo am loolu war loon am. métti na trop métti na trop métti nañu man ba ci man ni métti na ma métti na ma trop mais bu beneen yoonatee nag ñu xool li ñuy def arbitre bi tamit xanaa sa soxna si toggal la woon nga lekk ba suur xanaa doo gis xanaa doo xool am na yenn yoo xam ne naa isul. dégg nga waga la. waaw na nekk komba waga mais ñun du ñu ay waga ay noobul lañu. unde ci abuko manjaako abuko manjaako di ko fuur. waga doxul foofu noonu. foofu xel moo fa dox ak technique moo fa dox ak mun a dóor. loolu moo fa dox mun box. loolu moo fa dox mais lees waxul ale boo gis am na retour mais bu retour ba ñoo xam ne naa bu ko ma njaago di ko fuur billaay wallaay ko njaago bu ko fuur di doomu njaago du dof bu dofee rek dëgg loo xam ne ne waru ko a dëgg dégg naa keroog jala ngi génn na waaw day génn xam nga la mais xam nga de mais day dëgg. xam nga demuñu sax si yenn affaires yi liis nag boo ko xoolee ba xool il est croyant boo ko gisee sëñ de la rek lay def bu desoon a glissa glissa garab sax du ko sangoo parce que am na am na ah, mun na mun na lu muy def. billaay wallaay. non non ban génn <laughs> mais dina génn mais ñoo xam ne ni bëgg liis bu ñu bëgg liis sax gis nga liis ndeysaan sama frère la sama nijaay la Liss bu ma koy xool sama yaram dafay daw du dara man Binta dara safu ma boo ma wanee respect jaay ma ngor man ma ànd ak yow ci fula ak dignité mais boo ma wanee ni faalewu ma la ma rombale ni xoolal ay déchets faalewu ma loolu mais Liss respect bi ma jox ba ma jëkk ko mook Laurent yaa ngi dégg même Siteu tamit bu ma gisee ñaar loxo la may nuyoo comme am na yenn yoo xam ne ni sama yaram dafa daw <laughs> billaay yal na ko yàlla lafal jet billaay wallaay xanaa mu am na ñoo xam ne na xamuñu li sax mais ñu ngi doon génne ay sarax gis nga le respect et réciproque xaw ma lu ñu koy waxee. Ah, waaw lis yaru na teey na liis baax na man loolu laa xam ci ñoom man li ma xam ci doomu aadama rek laay wax man makat man. kon yaa ngi soog a ñibbi si jàmm gën. maa ngi woon jàmm gën. waaw dama doom féete sama victoire. dama ko doom féete man Binta man dama ko doon féete. billaay wallaay dama ko doon fee féete ma xam ne ne direct Euh, dët ak deret la deret kenn mënu kaa segg looloo tax ma nekk jàmm gën ñeenti fan maa ngi jàmm gën billaay wallaay lis jaral na ma ko billaay wallaay fu ma woo dama koy wuyu billaay wallaay waaw mun na génn parce que nee naa la ñun ñun famille bu ñu bokk ñun xam nañu loolu liis am na foo xam ne bu fa demoon sax mooy loolu mais aka doylu billaay walaay li am feneen ak feneen fu mu a dem feneen ak feneen am na fu mu mun a dem ay doomu njaago lañu kan moo ñu ko gën a xam unda ci bu ko man njaakoom ah dégg nga ñun ay doomu njaago lañ doomu njaago pire yaa ngi de <laughs> waaye kooku suma mama la una ci a bugo ma njaako a bugo ma njaago di ko fuur man boo ma ne kan mooy sama maam ma ne la palis njaago baar borom njaago baar biim njaago baar laa dëkk waaw di doomu njaago baar di sëtu njaago baar juddoo ca ndox ba yaroo ci ndox ba amuñu dara lu ñu mun a yéem nag ci digg jàmm gën bi même Guinée Bissau sama yaay kañ la jógee Guinée Bissau barki moo Njaay la jógee Guinée Bissau kon ñan ñooy borom Guinée Bissau ñun bu dugg ci non non non non bu la kës sama maam moo nekkoon njiiti moo nekkoon kii ba buur ba foofu king yaa ngi dégg moo jur sama maamaati maam ñun ay sëtu buur lañu biir bu si boppam sama maam dañ ko doom garder gaa yi taxaw ak seen i mété di ko garder man sëtu sët sëtaatu king la yeah my old papa is the king you know waaye yow doo ma bàyyi <laughs> makan oo Guinée Bissau ñun ñooy borom de ñun fu ñu gis da ñuy sukkal da ñuy raamal ci famille bu ñu bokk la njaago bala may sa dafa am te ay njaago bala may sa njaago bala may sa dafa am ñoo xam ne dañuy tëgg ah, am ñoo xam ne nit ay tëggkat lañu ñun dañ ñuy tagg ñu leen di baatere. Ah, dafa am njaago am na njaago géwél kay. am njaago bala am na njaago bala may sa ñu ne. am na ñeeño am na lépp ci njaago. Ah, waaw loolu am na. makan <laughs> bàyyi ma waay yow. makan bàyyi ma waay yow woo sama yaay mu expliqué la ko ñun foo ñu fekk dañuy belli. billaay wallaay barki baa ngees foo ñu fekk dañu benn bi amoon na fu mu tolloon jàmm gën ndax gis nañu bi liis di génn li mu mobilisé ci doomu aadama ndeysaan yaram dafa ah, daw si te moo doon génn waaw parce que benn lañu yaram dafa daw parce que jàmbagan ñun ñëpp bokk ndey boo ko bàyyi jàmbagan woo xalaat ne kii catholique la kii musulman la te ñëpp a xool ñëppay xàccandoo ñëppay dóorandoo doomu jàmbagan boo ko tooñul duloo la tooñ. billaay wallaay dafa mel ni tey jii géej waay respect bu ñu ma jox fii nii yaa ngi dégg 2000 lañ fi ñëw am nañ fi 26 ans dañ fi yàgg torop kenn musul dégg Binta lii ak lii man bu ma demee ba wax rek sama xol moo fees mais du ma tooñkat française la. teg ci ma nekk anglais am rastafari am believe myself am believe myself. mooy mbooloo mi mi mi liis génne keroog mbooloo mi. waaw moom moo ko fa am rek parce que dafa jox nit ñi cër rek loolu lañ koy delloo rek fii soo boo nàmp moom ngay gàll. waaw doom yaa ngi rawante si seen waajur yi parce que Liss il est bien moog Laurent yëpp ay borom baax lañu même si ta man nee naa la du ma tudd Liss te du ma tudd Laurent. te du ma tudd euh, sita man ñoom laa am ñoom lay tiitaroo. billaay wallaay cinq tonnes tamit mu nekk nit ku baax tamit nekk sama góor tamit tey bu ma demee ba nga dëkk ma micro bi grâce à lui. billaay wallaay waaw dañoo dëkk dëkk bu rafet mu nekk nit ku baax tamit billaay histoire bugg ci dara mais borom baax la waaw kay ëllëg ëllëg liis projet adversaire am ci làmb tey ñan la liis waaw Liss mun naa am ku ne. ñun boo ñu joxee Zos sax est-ce que Zos dépassé wuñ ko sax. Ah, Zos ngeen bëgg. waaw ay eh, dépassé ko. Eh, <laughs> ku baax la ba ma nekkee bi déggante na ñu benn waay ju baax. moo tax ma déggante moom moom tamit sama fan si loon dama ko bëgg. parce que dafa am saay-saay bu bëre. yu bi bëre sama nijaay sama nijaay lay faral de. Ah, <laughs> waaw mun na nekk. est-ce que xam nga ni liste waratul laal sax cachet bu ndaw. gis nga waa jàmb gën keroog lu ngi indi ci ay doomu aadama stade. bëri na. billaay dafa bëri. mbër bu mag amu ko ñaata mbër bu mag ñoo doon bëri te amuñu ko nañu waxante dëgg rek dëgg neexul bëri na trop trop trop mais yàlla baax na Pokola tamit def na tamit loo xam ne ni tamit bëri na tamit du dëgg ñoom ñëpp ay ndaw lañu. làmb jaa ngi nii jeex na. làmb ji demee woon bettuloo non musuma bett parce que dama leen ko yàgg wax man xam naa liis. wax naa Pokola moo ëpp doole liis moo ko dàq bëre. waa xam nga saa su ne doomu aadama yi Sénégal lii moo ñu yàq. ay dégg naa ni kii moo ko gën a taxaw ak yooyu noonu mais yàlla lu muy def yàlla noppi na waaw comme yàlla dafa wane foofu noonu li nga xam ne ni moo nekk positif wanewul négatif moo tax gis nga nit ñi di wax dañ leen di bàyyi ñuy wax rek nee naa leen avion bi bu xasee ba départ vagon yi wàcc yaa ngi dégg noonu yi fan la ñuy jëm keroog ña doon wax yëpp dañoo rus ñuy tudd bay tudd yàlla di ne barki yàlla Pokola bu jàppee lis nii affaire bi teg technique la. nekkoon ci TikTok bi di lëmbee waaw man xam nga man dama mature man am na yenn yoo xam ne du ma ko def. man duma dem foo xam ne dañ ma xoolal duma dem loo du ma def loo xam ne dañ ma fay xeebee man duma ma def loolu am a rasta for right billaay wallaay. waaw waaw waaw waaw parce que xam nga la la làmb moo ko laajoon rek. làmb baa ngeen nii jeex na ba pare. lu jeex jeex na xam nga kan la ñuy jooy fu mu toll nii. ndaw bi nga xam ne ne tey jii waa juróom da ko yónnee woon yaakamti ko bal perdi ñëw dal ko doomu jaamur. te yoonam newu ci te yoonam newu comme làmb kaf foo rek la. Mhm. ku sa mbër daan nga xam ne tey yàllaa newoon sa mbër day am ndam. Mhm. du dëgg lam bi dafay jeex léegi ëllëg bu ñu tasoon makan tey bu ñaawoon tey jii man du ma nekk ak yow makan ñaataat ma xamante ak yow comme lépp dafa war a rafet wax dafa war a woddu sër yaa ngi dégg wax dafa war a you know waaw toog mais di wax wax boo xam ne ne amul benn sens amul benn njëriñ mais yàlla dafay ñëwaat te bés bu ñu amaatee làmb euh, Laurent tamit am na combat le 26 lan. waaw waaw. <laughs> yal na ko yàlla may ndam. billaay wallaay mi ngi entraîné mais dina baax incha allah. waaw di tàggoo fan sam yooyu lan ngay tàggoo. waaw maa ngi ñaanal la àdduna bi yàlla may ñu jàmm ñun ñëpp rawatina Sénégal man lu may wax jomaay saa ne rek nu xoolaat ndaw yu ko fal. billaay ndaw yu ko faloon nii fu mu toll nii ñoom la ñuy rey comme ay ginaar te jaru ko fi ay sénégalais lañ métti na torop. du dëgg loolu laay tàggatoo tamit mu bàyyi xelam bu baax prison yi tamit du dëgg tabax si baa ngi ñëw grâce war naa mun a am du dëgg mu war a wàññi affaire yu xool tamit emploi tamit xam nga pour jeunes yi mu jox leen tamit ay emploi du dëgg waa kay pour ñu mën a liggéey yaa ngi understand man english bi laa gën a dégg french bi you know waaw ñaanal ñëpp jàmm ñaanal la jàmm ñaanal sa soxna si jàmm ah, ñaanal bennu jàmm am satu biige Zos euh, bàyyi benn bu ndaw tamit ñoom am di xam nga waaw ñoom ñoo ko fa am ñoom aada bàyyi faal du dëgg man ñoom laa am awma keneen du dëgg yàlla na yàlla defal jàmm ñun ñëpp combat bi bii di ñëw euh, sama nijaay ji yàlla may ko ndam loolu laay ñaan yàlla waaw. jëf mbokk yi jërë ngeen jëf ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.